mbaa yéen a nga caa ñi sa nekk nag te wàccuñu benn yoon mooy gayndey Sénégal yi nekk ni démb nag wane waat nañ seen bopp seen diggante Guinée équatoriale ginnaaw bi ñu leen buqee ñetti bal ci benn libération moom moo ko xamle dal dinañu nag qualifié demi-finale moom Aliou Cissé mu ngi jël sax li ni mel di peego rek njobootub Sénégal Sadio Mané nag muy xamle ne seeni objectif moo di rek jël coupe d'Afrique des nations foofee ca diwaanu Cameroun atum 2022 ubbil moom tamit wax ci Cameroun 2021 Sénégal digganteem ak Guinée équatorial dal dina ko mbuqee ñetti bal ci benn moom Cheikhou Kouyaté màgget na wala màggetul ci la dugg rek dal di lakk caax ya daw tuuti rek moom Ismaïla Sarr ay diir fubalu ci kaan gi moom itam dal di lakk caax ya li quotidien moom tamit xëy si li ni mel di xamle ne rek équipe nationale bu diwaanu Sénégal dortelam nag ci kaan gi foofee ca diwaanu Cameroun dalutoon xel waaye nag jamono ji dal dina reyante ba qualifié demi-finale réew mi la quotidien nga yëg a a la wala ngay xoolee Aliou Cissé moom ak gaynde ya wanewaat nañ seen i bopp ci ni digganteeg Guinée équatoriale dal di leen sonal nag mayuñ leen lu toll ni tarfatar ay ni ci naka noone la ñu leen mbuqi mbuqi yu métti ba ñu xool benni place yéen kaay bi di le stade moom moo ko xamle l'info dal di ñu fay nag ñii di waa nazak bu national Aliou Cissé muy xamle ne rek amatuñu benn match boo xamante ne rek dina yomb ci ñoom ndax li leen di xaar moom moo gën a defaat ba dëgër gannaaw ba ñu qualifié lii di demi-finale Sadio Mané di sub Sénégalais gi moom tamit dal dina yëkkati ay kàddu di xam ne rek dese na leen ay mbir yoo xamante ne faaw ñu gën see taxaw Cheikhou Kouyaté moom itam ngankab luwul moom njiitum réew mi Macky Sall mu ngay nag jaajëfal gayndey Sénégalais yi sigil diwaanu Sénégal ma nga xamante ne si ndorteel gi dañoo sëggoon Matar Ba moom itam ministre des sports àdduna ci li ni mel bés bi la suur moom itam addu jëm ci rek kan xëtam gu njëkk gi bés bi le jour moo ngi xamle ne rek Aliou Cissé moom dal dina gagné Sud Quotidien adduna itam jëm ci kaan gi Sénégal Guinée équatoriale muy xamle ne rek ñetti bal ci benn la ñu leen mbuqi gayndey Sénégal ya moom jamono ji di xoggaleku di wéy di dem di dox doxu gaynde Aliou Cissé coach su Lion bu Sénégal mu ngi xamle ne rek am na lu leen di xaar gannaaw ba ñu war a laalante ak waa Burkina Faso ñu leen di dippee les étalons bàyyi naa waxu football dem ci li nga xamante ne moom moo di rek élection locale vingt-quatre la ñi si ne rek ay chiffres yu yees rek wone li nga xamante ni moom moo di force politique am moom Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp Alioune Tine mu ngi xamle ne rek ginnaaw bi ñu normaloo ci élection locale yi li ni mel moom mooy doxalinu politique bu njiitum réew mi Macky boo xamante ne dafa am défiance moom Déthié Fall mu ngay dox ndànk-ndànk wutali waa Yewwi Askan Wi muy xamle ne rek leadership bu Omar Sané dafa incontestable la turbine mu amal ab cag diagnostic jëm ci rek ndërmelu bu waa Benno Bokk Yaakaar bi Dakar Times dem di wax ci grève enseignant yi bind ab bataaxel jëglal ko njiitum réew mi Macky di xam leen rek ndongo ya moom jamono ji ñu ngay souffrir ma des ba tey ci wàllum politique ak direct news ubbil ma xëtam gu njëkk bi muy xam leen rek Benno Bokk Yaakaar mu ngay résister ca biir waaye nag ci grande ville ya dafa ndërmelu Benno Bokk Yaakaar ba tey jilee mu ngay revendiquer aw victoire am ñu àddu wax ci élection législative ya bu porte parole bu Benno Bokk Yaakaar moom ma njiitum réew mi mu ngay garder sax li di sans foi am ba tey jilee ci élection locale yi El Hadji Dia moom mu ngay addu jëm ci élection locale yi foofee ca diwaanu Bambey muy xam le ne rek dal dinañu bind seeni recours ngir rek récupérer seeni victoire foofee ca diwaanu Sangalkam bu ñu sukkandikoo ci Omar Gueye moom dafa saisi waa cour d'appel ba rek di andi ab recours duudi seen ca Grand Yoff Ndeye Sali Diop Dieng moom itam di xam le ne rek moom moomee sax mosul dugg rek ci campagne électorale ya Sénégal APR moom moom la ñu fa rek joxoñu baaroomu tuuma ci ndermelu boobu waa Benno Bokk Yaakaar bi ba tey rek ci élection locale yi ak grand place muy xam leen ne rek moom ministre Omar Gueye dafa ñàkk ba pare teg si itam di ñànki dem naa ci l'observateur muy xam leen ne rek imam Alioune Badara Ndao mi nga xamante ne rek ba tey jile moom justice bàyyeegu ko mu nga topp rek ci ay tànkam xam leen ne ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerub février dina wuyu ji ci ëttu layookaaya Walf Quotidien bu conseil municipal yi l'autre askan gi moom Timbo mu ngay assise ay braise Ibou Sané di ab sociologue mu ngay xam le ne rek waa ku jeeg politique bi nga xamante ne jamono ji ñoom ñoo jiitu ci gox-goxaat yi boo moytuwul nag dinañ ab ab jafe-jafe mu ci mel ni ay blocage ñu wax nag ci musiba ba amoon ca diwaanu Kër Massar bébé Talla mi amoon ñetti at moom mi nga xamante ne dañu koo taaloon mu takk jipeet mujj na sax ñàkk bakkanam da ngay sot loolu rek daw naa dem ci lamb ji suñu lamb muy xam le rek jàkkaarloog si samedi gale ñu génni ca 2STV la ñu ko doon amal ñu gis ne kii di Bombardier dafa ànd ak dal waaye Eumeu Sène mu ngay cëfër cëfëri ak i ñemmi ñam muy xamle ne sax bi le combat moom amu ci benn risque Bombardier rax si dolli di xamle ne rek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bu jàppee Eumeu Sène du doy boobu la lamb moom ñëpp a ngi koy xaar